ndawi ADEV yi faree ci commune bu Ross Béthio yëkkati seenub rafetlu taxawayu président Macky Sall ci candidature am bi ñu doon lam lamé jëm ci élection présidentielle février 2024 Moustapha Ndaw jappé ko waxu kilifa waaye tamit waxi homme d'état ak posture républicaine mu nekk déclaration bu nga xamanteni tay Sénégal dafa am ndam tay ñëpp am fierté ci suñu ki nga mu est grandeur est démocrate est républicain bi nous donne teg ñu ci piste bu nga xamante ni tey ku war vraiment xam ni réew mi ñun ñoo ko moom mënu donc ñu ko ci vous avez honoré la démocratie du Sénégal vous avez honoré la République du Sénégal vous avez honoré vos partisans kon merci au président Macky Sall ñoom ndaw ñi bootu ci ginnaaw Fally Seck rafetlu taxawaay wi nga xamante ne jaraafu Ross Béthio ma ngi koy amal tey jii nag ñu gën a féddali wat kóllëre ngir ànd ak moom ba fépp rek fu mu nar a àgg ak yile ci ay chantier yu muy amal ci diwaan bile. féddale suñu ancrage suñu attachement ak suñu engagement derrière le maire Fally Seck bi nga xamante ni tey tax na Ross Béthio ñu am espoir tax na Ross Béthio mën a nekk une ville attractive et compétitive. taxna na Ross Béthio képp fi yeewoo tay mu am espoir espoir ci tekki am espoir ci émergence am espoir ci développement teg na programme père muy programme bu nga xam tay gis nañu njëriñ yi tey ñi fi ñew ñep am nañu fitu wote guddi parce que tay dëkk bi yëpp leer na mais aussi travaux yi koo gis xamni faali mi dafa taxaw pour jëlee Ross Béthio ci point bu nga xamante point ba mu ko jëmee moom moo gën a moom moo gën am solo. ñu amal ko nag ci ab mobilisation bu mag a mag ndaw ñi ñëpp kenn ku ci nekk yëkkati kàddu jox ndigal kii di Moustapha Ndaw te it gën a bootu ci ginnaawam ngir mu àggale leen ca kii di Fally Seck kàddu gi doon benn di déglu moom moomay jaraaf bu ros Ross Béthio lépp rek lu mu xalaat ña nga ca waaye fépp rek fa mu namm jëm ñoom it ña nga ca ak moom. te ñu ngi lay déglu. te faut ñu xolloo foofu la teklo xool que nous tegloo tamit suñu nous foofu la ñuy teg suñu tànk parce que wan nga nous wax nous ñu te def nga aussi ñu gis li wan ci projet votre sens du développement nous rassure vos actes aussi nous rassurent encore une fois donc le maire Farisek, soyez rassurés que la jeunesse notamment de et de Tiedem, sont derrière vous et vous écoutent quoi qu'il advienne nous décidons. nous loolu lañu décidé te nous bëgg aussi loolu la bëgg ca jataay ba nag ñu ràññee fa teewaayu kii di Birahim Wade di ku ñu ràññee bu baax ci wàllu politique kàddu yamu yëkkati jëm ci gën leen gunge ngir taxawal kii di Fally Seck moom moomee mu xam le ni tey jii la gën a dogu ngir jàppale jaraaf bu Ross Béthio waaye tamit lépp lu mu jàppoon ci wàllu politique mu wan ko ginnaaw ngir njëriñal kii di Fally Seck juriste de formation Mustafa Ndaw xamle rek ni nam nañu gëna a ndaw ñi nekké ci digënté ci dem ak ñorno ci jëm ci walu formalisation ngir nak li jëm ci walu développement ñu gën ko mëna jëmmal ci lé gox. teg ay projet yoo xam fi ak ay fan wala fi ak ay wër di ngeen gis ni ñorno ak ci dem jeunesse bi changé na wala jeunesse bi am nañu benn teg tank bu nga xam dañ ko teg pour vraiment changer la donne. te buñ nee changé la done day nekk lu nekk lu positif lu nga xamante ni tey ñëpp daan ci jariñu bile jataay dajale askan wu bari wu nekkee ci diggante njorno ak ca déem ñu ràññee ci mag ndaw góor ak jigéen ñëpp rek xàccandoo dóorandoo jëm ci benn yoon mu di jaraaf bu Ross Béthio gunge ko gën a dëgëral taxawaayam ci wàllu politique yaatal nag lile di mouvement ADEV ci diwaan bu Ross Béthio